état moo créé. une situation insurrectionnelle waaw. état moo convoqué Ousmane Sonko on a convoqué Ousmane Sonko à si à tribunal mu daw dugg biir Ziguinchor loolu état situation insurrectionnelle la état su doon créé situation insurrectionnelle duñu jëlee Ousmane Sonko ki Koungheul andi ko Ndakaaru pour jàmmaam c'est lui qui a appelé à l'insurrection saa yu ko woowee mu woo nit ñi ne leen génn leen. saa yu ñu ko defee lii mu woo nit ñi ne leen jóg leen ngeen xeexal ma te li muy wax jóg leen ngeen xeexal ma yëpp coobare boppam la lan mooy yoonu état si situation insurrectionnelle ci nit koo xamante ni moo toog def conférence de presse sosal nit lan moo ci yoonu état yoon dal ci kawam mu génn taxaw ne ma défendre leen ma lan mooy yoonu état ci loo xamante ni parce que état aussi il faut que ñu définir ko état yow la man la ak keneen ak keneen leta est régalien maintien de l'ordre dañ ciy waxtaan gis nga maintien de l'ordre du gaañ du leneen c'est pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations mhm. loolu mooy maintenir l'ordre public nos forces de défense et de sécurité il font tout pour maintenir l'ordre public pour maintenir l'ordre public il faut gaz lacrymogène am parce que foule bii dajaloo la ñuy bañ parce que foule bii dajaloo mooy indi émeute suba donc loolu mooy rôle lu état c'est de maintenir l'ordre public pour permettre ni nga xam ni seen yoon newu ci parce que nous les hommes politiques et les partisans nous ne sommes pas 10 pour cent de la population et les 90 10 pour cent autres ñi nga xam ni seen yoon newul ci coow li dañ leen di teree dem dañ leen di teree dox seen i soxla dañ leen di teree wax seen i soxla fu fu fu fu ñu waxee rek les gens sont en train de se barricader. pour bañ ku leen ku leen ku leen ku leen ku leen ku leen d'accord léegi maintenant pour te dire ah. gis nga dafa am loo xamante ni dañ ciy waxtaan muy lan doyen man respecté naa la lool bëgg naa la lool mais dafa am cër yoo xamante ni dama koy jox doomu adama ci taxawaay man kenn du ma manipuler je ne suis kenn du dox di di ngay toog di manipuler nit ñi mais li ma xam hmm. mooy li xew Sénégal yàgg na ñëw politique nag politique yàgg naa xew Sénégal. Mhm. mais li ñu gis nii nit koo xamante ni fu mu jógee bakkan dee nit koo xamante ni fu ñu jógee comment pouvez-vous imaginer madame Camara corbillard bu nekk ci biir juma nuñ koy taale biir juma fa la ñuy jaamoo yàlla corbillard bi fa la ñuy dencee ñi nga suñu waw dawla yi ñu taal ko jubli ci lan loolu tax ma ne la c'est du banditisme c'est pas de la politique parce que politique politique lii ñuy def la. débat d'idée débat d'idée la c'est pas la force des bras c'est la force des arguments mais su nekkee nag yow pour que tu puisses régler tes problèmes politiques il faut appeler les gens à l'insurrection l'État doit prendre ses responsabilités.